tey lañ ko teg naan ko baax na baax na ba Ablaye Wade na ko ñool jël say baga damay dugg. d'accord d'accord si dara. moo tax gisoo ku ci daanu am koo mere. Mhm. même Macky Sall mi bi mu daanoo am na ku am na ñu mu mere. parce que day booy seet ay affaire am day mel ni am na ñu xam ni. Mhm. liñ ko war a wax waxuñu ko ko. Mhm. imaginez président tay mu wàccal boppam yow ñëw ci terrain bi fekk ñu doon luubal mu ñëw lijjanti ko ci loxo boppam. ak mu yónni nit kooku lijjanti ko ban moo gën a gaaw président président bi dafa gën a gaaw dama ne tey képp ko xam ne nii yaa ngi ci réew mi nga jog ci réew mi dem am looy lijjanti bo ndax da demal sa bopp wala président moo lay ku dem président moo la yónni mais xam nga kan moo ko def màggat yu xobi daa si kii xale bu ndaw la mhm. lu muy yóbbante waxal kii du Ablaye Wade du Macky Sall de xale bu ndaw la deretam di daw normal. Mhm. am na yenn yoo xam ne ni bu wàccul ci terrain bi def ko xanaa day juddu rek retraité. Mhm. waxal. Mhm. am na président yoo xam ne bis bi ñu leen falee si lañ retraité. kii nag dañ koo fal mu wane ni moom day liggéey gis nga ñii ñii dañuy liggéey de. ma jumaay ma fàttali la tey am un mois ci nguur gi un mois. waaw xoola ma wax la benn affaire. Sénégal ku ko bëgg a defar. tappale yi ngay njëkk a defar. tappale yi. ñi nga xam ne nii nag dañuy bañ ko aj day bañ ku séenu mhm. ñiy bañ ku seenu ñoom ñooy génn di ci critiquer dara en tout cas dama wax ni wàcc bii mu wàcc dem ci terrain bi mhm. ñoom Seydina Omar de bi ñu nekkee aninul moominin noonu lañ daan wàccee si terrain bi yonent bi noonu la daan wàccee si terrain bi mhm. que boo xasee ni yaay président muus mu xiif sax yaa ko gàddu xam nga dañ ni ñu bëri dañuy wax naan naan président baaxul du dugg àjjana du lii du laa président bu ñu fal yi nga tëdd sa kër yaa yóbbu sa bopp safara fal nañ la hmm. lan moo tax ñu fal la soxlay dëkk bi aajoy dëkk bi aajoy nit ñi soxlay nit ñi nga tëdd di yabal benn naar wala benn jimboori boo xam ne bu demee nit baab ko mu wàcc. mais est-ce que dina dina continuer loolu sénégalais yi di wax. bon ñiy commentaire si réseau yi. non ak les opposants ñu ngi wax que ni est-ce que président bi tànk dàllam dina dina dina. mel noonu sax chaque fois mu yàgg ci terrain bi. xam nga ñuy wax ne du continuer waaw. problème bi mooy kii xale bu ndaw la léegi lan lay def bu bu demee toog lan lay def c'est que ñu njëkk ni ay Macky Sall ay ay kii naka la tuddati Ablaye Wade affaire yooy ñooñu mag lañ du dëgg am na yoo xam ne mënuñu ko mais lii xoola Thomas Sankara xam nga nan la def ba nekk meilleur président Afrique waaw chaque jour xoola biñ daan gas raay bi ci ci Burkina Faso Thomas Sankara bu xëyee suba teel day ñëw ñu pointé ko mu liggéey ci raay bi di tibb ba ngoon mu wàcc dem ñibbi. oh raay bi ñu doon defar ci Burkina Faso. Hmm. boo ko tàppee di nga ko gis. dafa daan ñëw di liggéey ci raay bi lu ñu waay di liggéey day ñëw liggéey lëkkal la ko ba ngoon boo leen wàccee mu wàcc. d' accord ci litige foncier boobu noonu sax bëgg naa ñu taxaw ci parce que euh, Rama sax xam naa dina ci yow moom mooy ko di côté côté côté corniche bi. Mm-hmm. bo fa jaaree man barki dem rek jaar fa. Mm-hmm. mais ay immeuble ay building. yo xamné litoral littoral bi c'est mm-hmm. des milliards et des milliards. yo xamné et puis do xam kan moy tabax yow dal da ngay da fay rombu tay mu don santi suba nga mu don building bu ngand. Euh, basirou tok def un mois ci nguur gi rek ni kep koy tabax. ci ci ci ci ci corniche bi. liko ko fi ba Malika nañu ko arrêter ba deskos, sax Descos autant pour moi def na ci communiquer wax ni. nanu arrêté loolu lan la si Bassirou Diomaye Faye jublu jimboor yi euh, boo ci defee jàngat est-ce que jubluwu ci euh, toroxal gaay yi wala naqaral leen wala teg leen fitna wala métital leen parce que lu bari ci immeuble yooyu noonu man for am naa ci ay sources claires que ni ñi newoon ci nguur gi ñoo ko moom mhm. donc euh, Bassirou moom aussi peut-être gis na ay kayit yu ko woon ni ñii ñi nekk ci nguur gi ñoo moom immeuble yi ñuy tabax ci mhm. li nga xam ne moom moo di corniche bi am mhm. na nga ci décision boobu mu jël non mais xam nga kii daañ projet bi bi ñoom Sonko di ñëw. Hmm. dafa am lu ñu waxoon. waaw dañ ni bu ñu ñëwee toog danañ fexe ba jaañ naar bu yoree un million Jimbori dina yor cinq cent mille. waaw Rama dina yor trois cent mille. Euh, Assane dana yor deux cent mille. Naim dana yor cent mille. loolu loolu mooy projet bi. Mhm. léegi dama lay wax benn affaire Sénégal rek ngay ñëw fekk fi ko xam ne maamaati maamam amul kër. Mhm. maamam amul kër papaam amul kër moom amul kër. Mhm. ay étranger ñëw am ay kër. ay nit di liggéey ci nguur yor junniy kër. ak koy amee. yow sax xoola nguur yi fi newoon ñun ñoo daan wër naan gis nga diw këram gi. këram gi waaw non kër gi dafa garaaw gis nga studio bi. fekk na yow li nga waroon amee kër la amee kër. sa yëf man mënu ma comprendre ñi pi newoon am junniy kër. nga gis ko gaare téeméeri oto. te du ci yéeg téeméeri moto te du ci yéeg. mais ñii dañoo soxor wala lalla. xam nga lan la fi bëgg dindi loolu la fi bëgg a dindi jaañ naar nga am kër man ma am kër rama mi am kër. Mm-hmm. loolu la fi bëgg a dindi parce que gis nga bu ñu réglé foof corniche bu ñu ko réglé tegaat suuf si ci yoon wallaahi yow di nga jënd kër. mais est-ce que dina neex naan ay réglé que gis nga euh, corniche bi yëpp tabax nañ ko ay immeuble nan la ko Sonko ban Sonko Sonko lan lay def. waaw day dagg immeuble yi di ko loué delloowaat ko ci askan wi. wala je sais daal loo xam ne tabax nañ ba pare. waaw ak aussi boo ko tojee yàq la. gas bi yàq xam nga xam nga day lépp lu sës si géej gi domaine national la. waaw dëgg la de moo ko moom moo ko moom mais léegi bu état ba de état demee ba lépp lu sa si géej gi état perte ko ana état. dara de. ana état. Mhm. waxal. Mhm. gisoo yaraax amul jaay kenn du jaay de. foo jaay da nga am non yaraax kenn du ko jaay. parce que ah, na national la bu la neexee nga dëkk mais amul jaay. dafa am ay place mais bu ñu demee ba place yi ñu ne woon bu ko kenn jaay yooyu lañ jaay jaañ naar ana état bi ana état. Mhm. ñii parce que ñom xam nga gaay yi ñu ngi naan waaw dañuy leb dañuy lijeenti ji xaaliss bala nga lijeenti ji xaaliss bala nga lebi xaaliss bala nga tok di jaxlé li nga xamni moy alal bi nga xamni mom mom mom moom la état wara am est-ce que état du ko dello ci bopam ba paré dogo wuti xëy état bi tay bu dello ci mu wara am mom, li wara am buñ ko ko joxé lool rek mën na ci régler problème Sénégalais lu leer la lay wax euh, no gisé ah. vidéo bi nga xamné jom Sonko bi mu koy def ça fait des années mu mu àddu woon ci wax ba wax sax ke ni ñi mom li xawma ma ñan lañ way seen ay milliards buñ ko def fi ndax buñu yalla joxe nguur gi dañ koy nanguwaat. wa xam nga Sonko euh gisoon nañu quoi mom Sonko ben jëm la bu yalla waté quoi wax deug yalla parce que lim doon wax dafa mel dañ ko yoni pour mu wax ko ba pare lu mu si mës wax tamit feñ na li mu waxoon gaa yëpp gaa yi si lañ tabbi mais man yàgg def ay émission di wax ni euh, nguur gi fi nek nañ respecté ñii leen opposé yow dama la ko daan wax ne la kenn ci ñoom moo leen remplacé. waaw waaw xam tey. Hmm. est-ce que xam nga buur boo xam ne dafa pare def njub. Hmm. est-ce que xam nga fan nga koy xam fan nga koy xamee ko opposé da leen jox respect. Hmm. fu dool yi ba si jamaay fay pour pour ñu xam ne carrément moom day liggéey. dana respecter opposition bi dana respecter ñoom bugaan respecter ñu ko opposé respecter ñu la opposé moo lay permettre pour nga jóg bàyyi sa xel bu baax daal di liggéey mais ñi fi woon ñàkk a jox respect ñoom Ousmane Sonko moo taxoon ñuy def lu leen neex te jàpp jàppu ñu woon ni ñooñu war na noo mën a ñëw ci nguur parce que norme yi nit daan jaar nekk buur ak fi ñu daan jaarale suñu buur yi bañ nekk buur ñoom Sonko jaaruñu foofu nekk buur d'accord rapport parce que e ay nit ñoo daan ñëw jàppale la ñi daan jàppale waate mm-hmm. yàlla da leen cee rocc France bi daan jàppale yàlla da ko cee rocc mhm. ñan ñoo fal ñii sénégalais yi te sénégalais yi dong dong dong dong suñu fal buur mu ñëw ok rapport rapport CDC bi noo ko noo ko gisee j'en suis sûr que ni jàng nga ko te liir nga ko euh, Cour des comptes génne na ay rapport peut-être nit ñi di wax sax ay am nañ yoo xam ne épinglé nañ ni ci euh, ñu siy tudd ku mel ni Pape Malick Ndour euh, ay ministres yi nga xam ne nekkoon nañ leen fi jot nañ leen si tudd donc yooyu bu génnee jimboori ba mu am ba ñin kii daal laal ci alalul nguur euh, askan wi wala kii kat bokk na ci ñuy épingle ci ku euh, ci rapport yi nga xam ne Cour des comptes génne na ko euh, kooku lan la ñuy xaar ci moom après. non man xamal lan laay wax nit ñi doon dénoncé ak nit ñu déclaré du benn. Hmm. oui xam nga bu njëkk ba ni ñu doon wax seen tur ni ñu doon faral di wax seen tur ak nii ma dégg nekkuñ benn wax dëgg yàlla bu fekkoon ñooñu dañ leen ci boole boole waale ci ñii hmm. man damay d'accord Mame Mbaye Niang de doon naa ko ci dégg waaw waaw mais xam nga tey quel le problème mais tey daal xam nga lan la xam nga rapport bi moom neex na neex na wax parce que ñoom Ousmane Sonko daanaka ñoom moom lañ campagne yi hmm.